mbokk yi xarit yi ñu ngi leen di nuyu si biir limametti point com site d'information bi nga xam ne information yi wér te wóor lay joxe xibaar bu ñu dab nag mu tiise lool te bette lool te metti ñu xamante ne ñu bëri la ci askanu Sénégal ndax ki nga xamante ne moom lañ fi ñàkk ñu doon ko woowee Fama Fall waaye ñu ñàkk gënoon a xam si Thiaba Thiès nekk artiste comédienne boo xam ne kenn dootu ko présenté si yi nga xamante ne rôle yi nga xam ne incarné na ko mu mel ni mbokki Sénégal askanu Sénégal gontoo nañu tiis tey si samedi bi naqar ak métit ak jaaxle ndax barki dem moo njaay bi ñu fi ñàkkee suñu papa dem bi Fall barki dem ñu ñàkk suñu yaay Miriam joor tey ca ba la mu nekk loo xamante ne lu bett lool askanu Sénégal la limametti point com nag xibaar bi léegi ko jot waaye loo xamante ne am na ci incha allah dinañ leen ko toppal seen biir site d'information bi di limametti waaye ñu ngi jaale képp koo xamante ne yaa ngi ci monde cinéma suñu yaay ca ba Thiès dem na mbetteel wét na Sénégal wet na loolu la yàlla def kon ñu ngi koy jaale bu baax a baax képp koo xam ne yaa ngi ci biir cinéma ñàkk nañu suñu yaay Thiaba Thiès yàlla yërëm xare ko àjjana gannaaw feebar bu gàtt bu ko tëral ndax génn gi mu génnoon fan yële si réseaux sociaux yi ñu ngi ko doon suivre ndekete yow boobu mooy nekk mujjanteelu vidéo am kon askanu Sénégal ñu ngi leen di jaale bu baax a baax te leen tàggee suñu yaay jooju Thiaba Thiès li mu métti nañ leen ko toppal seen site d'information bi nga xamante ne xibaar yu wér te wóor lay joxe.